Wah, barang madu gue sih, kan? Itu agak lagi. Semua jambal di muka di parking, aman sini tengok mulai dalam asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yi ñi nga xamante ni di faral di ànd ak LS TV One tey nag a leen gisee jàmbaar sa waar wa la comme ni ñu ko dee defee always jàmbaar la ñu ñu dem fekk ci seeni waar waaye nag suñu jàmbaar dafa ñu fekk ñu fii nga xamante ni moo di suñu studio bi ngir ñu am moom waxtaan. nee naa nag euh, moom euh, jarul sax xëy na nit ñi di ko prison lu bëree bëri ndax nekk na koo xamante ni ñu bëri képp koo xam ne da ngay jëfandikoo social media bi di nga ko xam bu baax a baax am naa ñu ngi dinañ ne waa Mariama tey lu ma ndirool nii waa gis ngeen li ci kaw nii suma jàmbaar ji moo ko defar ki nga xamante ne tey moom laa fi dalal fii nii ci LSTV1 ah, moo ko daal di defar ba mu yànja nii rek ah, LSTV1 la always nag jàmbaar sa waaroon mu xam ngeen nu muy demee man la Mariama Ba ak suma caméraman bi nga xamante ne bi xaw ma nu mu mel tey moom du ma ko describe ah, muy Ousmane Kabara moom laa si dee àndal waaye tey nag li nga xamante ki nga xam ne moo di suñu jàmbaar muy jàmbaaru LSTV di jàmbaaru Gambie yëpp ndax ku mën a defar yu naay si naa ne li ko ko gis rek xam ne dëgg dëgg tey ndaanaan nañu invite dëgg dëgg tey jàmbaar nañu moo ñu ñëw fii si suñu studio bi jàmbaar waxtaan lañ nar a waxal muy wuyoo ci turu Assane Thiam dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo laataa ñuy dugg ci li nga xamante ni moo di bi dama aj ci kaw waaw gis ngeen tey dama aj ci kaw waaw kon uh, Assane uh, nuyu la. Ah, maa la fay maa ngi nuyu waa réew bi ñu ma seetaan di nuyu suma fan si TikTok di nuyu suma ñaari waajur yépp di la woo jërëjëf. jërëjëf Assane. ah kon gis ngeen ko kooku mu nekk Assane Assane Thiam ñu ngi nemmeeku ko gis ngeen ko waxee moom sax dafa nuyu fans TikTok loolu rek war naa wane ne nekk koo xamante ne ji kuñ xamee ci TikTok bi xamee ko si social media ñu nemmeeku ne daf dee defar yu nice defar yoo xamante ne nii macha allah képp koo xamante ne nii rek jëfandikoo ko rek di nga gis sa boppa te nit tamit dinañ la ràññee. kon Assane dañ la dalal ci suñu plateforme bi di LSTV 1. tey nag uh, programme bi mooy jàmbaar sa waar wa normali nag dañ dee faral di dem seeti ji comme jàmbaar yi bàyyiwuñ kapinta bi bàyyiwuñ téyeer bi bàyyiwuñ kenn waaye nag képp ku ñu gis tamit ngay def loo xamante ni dafa rafet uh, Gambie dañ koy apprécier dafa baax yi tamit ñu am la moo tax tey tamit dañu am mbégte uh, pour am la fii nii di bëgg rek di xam ndax tey bu ñu gisee ñu gis crowns yi moom nga dee defar ak some decorations ak yooyu noonu yëpp ñu bëgg a xam tey ji Assane fan la juddoo Assane fan la yaroo fan la màggee fan la demee school laataa ñuy gën a dugg ci walla start ci li nga xamante ne mooy liggéey bi. Euh, maa ngi jógee bànjul foofu laa yaroo ñëw Kombo fii euh, maa ngi dem school secondaire school foofu laa jàngee euh, bu ma jeexalee secondaire school dama doon dem chef chef school laa doon nekk. ok chef waaw dama doon Okay. Bala maa <laughs> Wah, a waaw bala sih dugg si micro mi si toogal laa jiitu. toogal la jiitu jiitu waaw. di tooga comme si uh, yan yan. kon damay uh, kéetari su ma amee kéetari nii. Mhm. ay xew yi badde yi dama lalu lay def. lan lan moo dem nga dugg def loolu nga dem si chef. jàng affaire chef ak yooyu noonu because gis nañ ne léegi euh, comme ndaw ñi rawatina sax nga nekk góor hmm. euh, li ñu njëkk xalaat mooy boo jàngee ba jeexal na ngaa dem si office nga toog danga bu nekk surprise si ñoom <laughs> la te euh, nga koy def lan moo la motivé ba nga dugg ci ah, suma yaay mu ndaw time boobu dafa tooge xew time boobu fekk maa ngi 14 years 15 saa yu dem toogee dama ko leeram laa toppa bàyyi foos foo ma toppa la yaa mune mene ma ne tey moom apa ma topp nga ni du leen ni xew ne saa moom jéetoon na nak moom wa moom moo na ma bëgg fi ba tax nga dem duga nga duga dem ci school si dem si school bi janga ba génn foofu ndax bi nga génne foofu da nga def hotel nga start fa liggéey wala da nga gini, foofu rek start open sa own business wala def sa own business waaw dama gini, fa ma ubbi own business ma njaay ko xawee ba ko close parce que borom butéel foo woon dafa soxla butik am bi soo léegi dama def catering suñu kër ku bëgg birthday wedding yooyu dama koy def suñu kër. ñu ko def seen euh, ñu ne bokkut ak tamit crown bi. léegi bokkut. crown bi léegi crown bi moom lan asan la ak. ak crown bi lan la. because tamit comme ni koy waxee waa kii crown bi lan la. ndax gis nañ ne comme yii ni nga dee defar xëy na bu nekkul yii sax am naa si kanam tuuti dinañ dem ñu dugal images yeeg. waaw ñu gis yeneen yu gën a yànja yi nga xamante asal daf koy defar ñu nemmeeku ne bi mu nekkee school daf daan def affaire drawing affaire design wala lan lan la wala dafa am ku la ko jàngal wala nu fa demee. man bi du ma nekkee school gi fa dama bëgg yëfi dama dee ci sama di dorool loo xam ne wala ma def si ñëwkat bi tay ma dama def si ñëw ko lii laa a nekk design atas may mun ne ma a sa jaaxal ba nga jeexal uh-huh. so léegi di wax ne like bëgg naa di nekk design léegi parce que am ma sol maa ko da nga am léegi da nga am atelier ñu la dee ñawal wala non déedéet amaanguma waaye dama leen di sama ñëwkat bi moom mu lay ñëwal maa lay design invité moom mu ko lay ñëwal. Oh, waaw because mun na mun naa wax ne maa ngi gisoon sa benn picture su see su ma juumul sax ma ko mu nekk ak une façon façon Gambia. façon Gambia waaw. ma gis la yaa ngi sol something loo xamante nii man mi sax ma ko xoolee dama ne waaw dëgg-dëgg lii. <laughs> Euh, fashion la lii dafa ànd ak fashion because gisuloo doo gis kenn ko sol. sol kan mooy xalaat création boobu noonu sol dara sol kosam na si kanamee euh, dinañ ko dugal sol dara sol kos euh, nga teg si benn laaw boo xamante ne bi non it was nice mu rafet trop waaye ñu gis ne ne yaa ngi si crown bi Assane. yee crown moom yaa sa xaalis si <laughs> am sa crown bi Assane ndax gis naa ne crown bi xale jigéen ñi bëgg nañ ko. Ah, ñiy def baat jee bugg nañ ko wéy si foo dem rek danga ko dee gis TikTok man man man man bu njëkk ba su ma ko naan gis ma ko dee wax dama dee wax ne waaw ah, first of all man dama foogoon ne yow Nigerian la truly speaking moo ko gisoon dama foogoon ma ne mais bi ku koy defa nekkul fii dama foogoon Nigeria la waaye after may gis comme ñu si mel ni Tida Diop ak ñooñu noonu ak ki nga xam ne ñu ko am fi muy Hadi Diagne ma gis ñu ko def si laa dogo stade di laajte bañ ne ma ah Assane Gambien la waaye dama foogoon ne comme bi ko nga comme fii nii am na yenn ay duñ duñ dee koy fësal bu baax a mm. baax euh, léegi dama bëggoon xam tey ji apart from nga jànga comme nga am nga am xelu ne waa dama bëgg a nekk designer wala ma bëgg a nekk ak lan moo la gën a motiver nga toog wala moo nekk wala first expérience bi nga njëkk a am ndax danga toog defar lii danga toog jënd banta defar mu nice nga ne lii mun nga ko développer bëgg nañ nga expliquer na ñi nga xamante ne ñoo ñoo bàyyi xel ñu xam Assane naka la naka la def ko tey ji crown si tool fii Ah, crown bi dama toogoon si saa bi di seetaan na suma yaay mm. ma gis ah, benn jigéen mu ngi ko soxal comme comme yooyu noonu film yooyu noonu waaw benn jigéen mu ko soxal ma gis naa ne mun naa ko defar mun na ma yow lu nekk ga bu ma toog ba guddi boori 12 ma start defar ko waaye first day mu ko def dama fayal mu fay waaye second day mu ko try ma am ko so ma post ko bu ko posé si la ko tiré job gis Tira Diop mu ne ma lii moom nice na so Tira Diop si la ma seen beneen vidéo mun nga dafa façon bi mu ne ko waa so ma defal ko si bisi bàddeem bi so mu ko Tira Diop solee ñu ngi stade ko like na ñu ngi stade ku nekk stade di moom du façon façon boo son li ba si yaago bi maa ko génne 2022 bi bi mm-hmm. bi 2022 bi laa ko génne la was ma fan TikTok yi ne am na bu ma wala génne 2022 moo nekk bi am na façon façon nag yeah te gis nañ tam da dee génne comme lu mel ni comme. waaw wins yi dee génne mu mel ni ay laax. loolu loolu ndax defar bi métti na ndax piis nga ko dee defaree wala banta wala because ko gisee nii nga ko defaree. wala nga ko def wala nga ko dee li bant yi brochette la. bant brochette waaw ma design ma defar ko yëpp. peen ko yëpp ndax xam nga si kër gi ku la jàppale pour nga defar ko. Ah, kër bi daa ko maa jàppale ma suma yaay. mom su demé ligi ba wàcc sometimes mom lay jass nek sama oray bari ne sometimes mom lay jappalé ci kër bi. ndax da nga am place. dëd am ak mo place ci kër bi la ko staji défar wa parce ligi léegi boutique den dañ moy mooy wa waaw boutique den dañ seer moom place ligi dañ seer so ñu gis né né Crown bi yaa ci develop développé mu ngi dem ndax tamit asan depuis bi nga jeexalee school nga stade ndax sa source of income si crown bi la jugee wala si toga bi wala asal dafa am background bu strong wa xam ne because li tam yomb is not easy ndax su fekkenté né li dang ko dem ban tay ci ndar ji du lo xamanté da ngay cub-cub rek nga def ko without nga am background bu strong wala ko la mm-hmm. jappalé ko xamanté né nii lér na la ne kii moo ma jàppale ba ma toll ah, si chef bi jotu mm. chef bi gëna jotu like defar crown yak yooyu noonu mm. ah, suma mag yi nag mom kaa macha allah am naa yu baax ñoo lu ma soxla ñom ko la jappale mo bëgge start business yi dama ñu ka dem ci suma mak Faamata Jaalo ak nana ñom ku nekk ñom ak tegal ba ma jëne bagage yi ma start yi def business suma ay yee surprise mo tam jëne ma ay carton na nga lay tuppi yi mo dafa ser seer tuppress mo tam surprise jëne ma ay carton ma start yi def business bi euh, ñu gis ne ne tamit mu ngi dox bu baax a baax ndax jamono ji amuloo si benn jafe-jafe wala comme ça exemple tey nit dee ñëw comme tey jii man Mariama nga ñëw indil ma crown bi ma def ko suma bopp bi rek téppar leen ne maa ko moom yóbbu kër wala tey jii nga àndaa nit wala nit ku la xam xam nga léegi tey xam. Mm-hmm. dafa dafa sonal nit ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. a a a nekk mbokk soo la doon am jafe-jafe boobu nit ku ñëw ne dama am baat de dama bëgg a crown Assane defaral ma without mu génnee indi ci jox la. wala mu ñëw mu fay la wala sax mu laaj la ndax lii ñaata la nga ko dee jaayee waaye lu am jafe-jafe boobu wala ah, am na mm. ma dafa mm. moom mm. waaye sometimes moom ah, yoo xam ne kon dama am koo xam ne ko joxee comme customer dafa leen wane like moom bëgg kola bi beneen kola la bëgg so dafay ñëw ba si kër ba su ñëw ba si kër mu gis different crown mu ne di bi laa bi laa bëgga bala muy jóge foofu su nekk tout la ñëw bala muy jóge foofu five la bëgg parce que dafay sol bi mu ne bii laa bëgga bii laa bëgga bu nekk dafa nice daal du lay xam bu mu lay cuus am na ñoo xam ne notaalu waaw notaalu <laughs> bis bu ñu amee Ramady Ndiaye. ñoom dañ lay ñëw 8 9 soppi sama benn sista mu ñëw benn bis di ko expliqué bu ko tamit taa. dafa dem di jëli bagage Sénégal ñëw gis ko fii di ko di ko jaay. mu ne ki ñëw di ñëw jënd si dafa toog bu mu lifin ay xaat sa doon jaay ak yooyu noonu. bu mu sol waxana bi téye bag bi ñu nataal ko mu ne bii rafetul mu tek mu ne ba bi mu paree mu ne ko ah gis mo fi lu nice mu ne mu paré wol bitiko gis ko mu dugal ko social media. Hmm. di di nata di ko def nga loolu tam daf dee daane. waaw dafa daane so ndax experience yoy ñu da nga ko dee. waaw daf may dal daal da nga gis yeneen jaay am class ñew su me ko sol nataal su paré ñene dina ñewat dina dinañ ñëwaat dinañ dee gisati gaay. doo gisati gaay dina ñëw wa ak tam ndax nit du la dee lepp ndax Gambia moom dëkku leb la ñu ñi dañuy leb bagage ba koy indi ñu leb ko si benn fay nekk ten am ñu la dee leb Gambia yow day am ñu la leb waaye moom ku ma leb dama lema ne ma léegi laa start waaw man dama bëgg a keroog soo soo ma lebee du ma mën a du am lay jëndee bagage parce que bagage léegi dafa seer mm. bagage léegi dafa seer trop euh, léegi ndax affaire comme catering bi yooyu noonu tooga yeeg yooyu noonu ba léegi ndax asan ba léegi man si man si kayitare yi di tooga yëpp tey. façon tooga nga dee tooga ñii ban ban façon. tooga boo xalaat Assane mun na ko chef Assane mun na ko. Hmm. kon chef Assane daal lañu am fii tey. plus <laughs> Assane ak si. Ah, Assane idea la daal. léegi ndax comme exemple tey ku am xew.

su ma amee ah, kéetaan bu rëy nii dikkandoor yi ma la ñoo dimbale. waaw. waaye ndax duñ la dee laajaat dara. de ànga ah, dikka moom tu la jàppale foog nga jox ko dara. after comme comme comme comme exemple for exemple laay wax na eh, mais bi dina ko mais bi dina ko exemple ñu fay la in a contract thirty thousand dollars mm-hmm. Euh, nga oo dëkkandoo yi tey jii ñi la jàppale ñoom juróom loolu juróom benn ku si nekk nga ekkati mais bi thousand thousand mhm. thousand jox leen te liñ la jàppale sa bari mhm. ah, ndax tamit léegi-léegi ñu séntu ne waa kii moom xaalis ñu ko so ndax problème boobu doo ko di am bi ko xam nga fi jamono bi ñu nekk nit ñi moom wax dëgg fa ne yàlla da mun nga def ak ñoom nii di leen jàppale mhm, waaye at di en li ngaa jigéen jëlee si ñoom wala li ngaa dégg ñuy wax is something different loo xamante ne daf mun na la mun na la gaañ dëgga so ndax doo dee am experience boobu noonu nit ku lañu jappalé nga nga ba paré xeyna mu tégal la ci bopp nahari wala ni mo def kanam bi rek dina la wone contact ci si lim la jappalé Uh, eh, man machallah di kan do loolu ma am benn baax ñoom moom wanul ma mais dañ ko wax suma gëna waye man wonul mako ko gisuma ko si liggéey tamit ñom mom da moom ñom mom dañ baax nak som doy dama akkat yi jox gaa ñu ne ma déedéet bu ma jox man ne ah yow iya. nak ma iya, ñoo dimbal sa foo ma jox la gisuma di dikkandoori moom mo machallah dañ baax nak kon ñuy wax ne rek kon ñu dem see xoole li nga xamantene ni moo di yu nice yi nga xamantene ni moom mu koo defar su ko defee ñu dellu si waat gën see waxtaan si loolu su ko defee bu si nekk rek ma waxal la lan nga si nga waxal ma nan nga ko liyee ak lii beeg yooyu noonu yëpp kon ñu dem seeti li nga xamantene moo di pictures yeeg yooyu noonu su ñëwee rek ñu ah, daal di continuer programme bi fini ci LSTV 1 dunda sa defar mu nais nga ne li bu ndokko di bona bëgg nañ nga explain ñi nga xamantene ñoo ñoo bàyyi xel ñu xam asal naka la naka la dem ba tey ci transition waaw bala ma dugg suñu taan ci toogalaa ji suma jàmbaar ji moo ko defar ki nga xamantene tey moom laa fi dalal finish LSTV1. Um, ok comme mbokk yi ñu la gis ngeen yu rafet yu nga xamante ne nii Assane moo ko defar mu nekk koo xamante ne ndaw la Gambien la Gambien la dëkk ah, kon laaj na jàppale ko waaye laataa ñuy si loolu rek loolu yëpp dinañ ci ñëw ñu dem ak lii ndax ah, gis naa ne face crown bi mooy nekk bi sol nii waaye bi gis naa ko fa ah, boobu moom man tippoo naa ko bu pare waaye bi moom naa ko tippoo <laughs> kon ñu gis ne tamit blue bi blue bi nekk nii ndax blue bi du same time tamit danga koo danga ko defar comme ni ñoo defaree white bi wala moom tam dafa am yoo xamante ne ni xëy na dafa different te gis nañ tam am yu nekk si gannaaw ndax yi yaa ko defar mu mel ni ay lii la defar. waaw maa ko defar yëpp. yaa ah, crown bi. Mhm. crown bi dafa mel ni comme li fi mu nekk si kanam lu buloo lii. Mhm. dafa mel ni comme buum la daal. comme buum la daal mu ko def ba mu sew sew man mun ko faa tey tey si crown ndax lii crown la wala du crown loolu lii la comme mébal la si kaw taabal. si kaw waaw. ko defar wala. man maa ko wàcce noonu defar. yaa ko defar dafa mel ni comme per la. per la ak comme semaine la daal. waaw comme per la after ko. boobu tamit rafet na trop bi sénti ñu gis bi waaye bii tam différent facette la mu nekk yellow bi bu mel ni comme janta nii. waaw mu nekk bii góol bi. bii bii lan lan lan lan ko lii bii dafa différent ak bii waaw bii dañu gis ne dafa am comme yu mel ni ay karaw. karaw waaw dafa mel ni moom da ko defaree noonu. bii gilita laa gis ma defar ko. gilita bu góol. moom itam mu nekkal rafet a rafet. rafet hmm. nice na trop. wala nga pink bi pink bi moom ay flowers waaw waaw moom flowers nga ko defaree. Euh, nga def si tamit banta yi. banta yi boo ko jëndee pare ndax da ko dee lifin. ndax da ko dee comme peinture. wala dama ko dee peint waaw ndax ndax loolu seer na parce que li ma gis nii nii. <laughs> seer na kay craam moom jëlee si craam mu dafa seer. soo léegi Assane benn craam ñaata nga fa dee jaayee. Ah, benn craam am na bu 550 am na bu

kon yow da ngaa expect ne lii kii ay junne. am na xam ne léegi lu bari du ko jaayee parce am na ñoo xam ne tamit laay bu mu ko àndee am na ñoo xam ne fu naa ñetti nit ñoom tam gars yi na di génne waaye seen boss ak sama boss duñ benn. duñ benn ko gisee li nga xam ne kii na ko posé di jooytu xaw ma is it let ñu la dul fay xawma am something like that wala ñu la dee pirate la ñu dee comme jëlaat di ko defaraat wala ñu dee deliver because mun naa ko waaye fàttalikoo ma daal li fi bi naka la bindoon waaye dama ko gisoon rek boobu that time xamaguma la bu baax ma dee kuy wax ne ne non mu ngi euh, kaas ne comme am na ñu dee defar. waaye comme dañ di pirate comme lu dee defar. waaw ñu bëri dañ dee foog na ne moom la. waaw te nekkul moom waaw. léegi jànkuwante yooyu ndax jamono bii mu tamit liggéey boo ko starté ñu ma copie ñooy ne ma nekk di copie ba kon laaj lu gën a neex nga am confit parce que moo tax ma indi bu ees every year ba ma indi bu ees. waaye waaye waaye est-ce bi tamit teelut pour si nit ñi ah, because Gambian bi tamit dafa am benn lu ñu saaloo. gis mhm. di ko def te is something loo xam ne man dama defoon ne daf dee xot wante ñu ne neen suñu biir. Mhm. ndax su fekkente ne yow Assane da nga dara yaa ngi defar crown ngi rafet mu ngi nice ñu ñaan koo jënd everything yow bi nga starté léegi maybe bu motee one si la mu am. so why not balaa ngay jéem a start compete ak Assane nga bàyyi sax at least two to three years. Mm-hmm. nga yow tam nga dugg si business boobu waaye gis nga ne Assane mu ko def yow tam nga toog dugg ci biir start di defar. Mm-hmm. façon façon bu nekk nga koo defar léegi yow dangaa yàqal Assane te yow sa bopp nag because lii tamit bu yàggee dina dem ba mujj gi ñu ngi xaar Assane si yeneen. Mm-hmm. yeneen yu mel ni lan dina dem ba mujj gi crown du xewati. dina am leneen lu xew because bi jamono ji mu ngi xew. waaye dina dem ba mujj gi. lii du xewati. Mhm. because lu nekk rek time bi yére moo mel noonu. Mhm. yére euh, ne mii mhm. euh, ngi am. waaw lu bari bu Gambien bi parce que maa ngi génne tam wins. wins bi tam boobu itam jigéen mu nañu ko bu photoshoot ñu art movie mm. parce que ñu bari moo ko posté ñu bari ngeen xaaroon ko order. kon crown bi tam first time mu koy ñu ne maa da nga ko ormale déedéet crown bi ñu nekk Amérique dañ ko lay ñu yóbbu ko foofu noonu ñu sol ko. it's very nice it's very nice te comme ni ko waxee wings yeeg yooyu. waaw la ko dee gis léegi léegi si horror films yi. waaw exactement maa ngi <laughs> moo ko gisee dama ne waa lii laa doon nii <laughs> ah. yaa Assane Assane na yaa ngi yaa ngi gaañ léegi dina dem bu mujj gi because yooyu dañ ko daan gis comme bitim réew nañ waaw si si horror film si mhm. ñu gis ne ne comme dañ ko dee wane xale yi di tiit di tub mhm, naa lii lan la kon suñ demee ba am doonu Gambian bu koo defar ñu ko mun di gis kon mhm. baax na tam ngeen tamit ngeen dem seeti crowns yi ngeen jëndal yéen ñi nga xam ne tam yéen si stade di dugga pour def business business la nag mu ngeen si dugga waaye tamit ah, challenge mu foor moom buñ jàppee Mm-hmm. xamal ne Assane moo ko fi indee xam nga léegi-léegi ñuy wax naan bul ma jàppee noonu ndax xamal ne maa la jiitu si waaw waaw géej bi because lii lu rafet la te lu naay sa te gis ngeen pictures yi am na yeneen yeneen yeneen uh, yu gën a rafet sa soo ñu dem si leneen mu jëm si wàllum comme ni ma la ko waxee woon rek ndax uh, comme projet si wax nga ne am nga yeneen ak yeneen waaye ndax tey ji exemple Assane am na yéene tey ji dem tukki wala ndax Assane Assane ndax sax mun nga mus nga tukki force kon Assane ni ma la gisee da ngaa ngele nga sa xaalis <laughs> yaa ngi dawal. waajib ngay dawal tukki nag ah, Sénégal rek laa am ñibbi. Sénégal nga am ñibbi ndax da nga business wala seeti mbokk. déedéet dama demoon seeti mbokk. ah ok you have family su Euh, so euh, ba léegi rek balaa ñuy dem parce xam naa ne lu ñu des si waxtu bareetul waaye rek comme ñu ñu dem ci leneen mu jëm si wàllu tooga bi nga wax euh, because ndax tamit Assane doo di am jafe-jafe si nit ñi ñu lay xoolee benn bët bi mu góor loolu tax muy tooga ndax doo di am jafe-jafe boobu. waaw loolu dama lay am jafe-jafe parce que man time mu nekkoon time mu nekkoon school wala like góor dina toog saa si koñ bi xam nga boy si ñu mel noonu waaye man moom mooy loolu man moom dama yaagaa déggee fii man xeer rek laa doon def time boobu man time bu gàtt mu lañ ñebe ci ba dum suma su tëree rek daf leen nelaw waaw waaw parce am na ñoo xam ne tamit su ma mbokk yi peut être dañu doon dellu suma di bàyyi man maay dem di tef keetale di tooga yooyu noonu yëpp. waaye man dama bañ man dama see rek parce que suma bëgg a su ñu la gisee la uh, waaye comme am support family bi rek mm-hmm. that is the best thing. Mm-hmm. Uh, so balaa ñuy tëj programme bi rek balaa laaj Assane ndax xëy mun nga ñëw wax ak tuuti si Assane ak famille am dëkk bi ak nu mu demee. na xëy na yaay a lot so moom suma best friend la moom suma best friend laa ko mun a ooyee parce que lu ma lu ma jaaxle moom laa dem toog waxalaa moom suma mag itam ñun moom suñu famille daamu macha allah Semua hari yi moom masih kita kii bi best friend hmm. dama am bestie sama iya, Semua yi semua sama lo. kii loolu la sama papa tamu kita ngi mau mungkin zaman. ah oke, sampai. papa Wah, mu ngi jaamani moom iya. wah. so asal asal asan asal borong la lah, asal borong baru lah. dama ko gis rek xam ne Lihat, Lihat, dégg nga xam nga ay am ko sunu maas gi yaram bi natural la natural Kamu amul xaalis waaye yaram baax asal buku bu yang gisee yaram bi nii dafa nekk xaalis waaw fa lekk yaa ngi lekk sa xaalis dëgg yaa ngi lekk sa xaalis sa craw bi nag gis naa ne mu ngi feeñ ne yaa ngi lekk sa xaalis nga taayee tiktok bi yaa ngi koy toj nañ ko de wax xaw sotti la waaw tiktok moom ñu bëri xam ne ma fa comme déedéet comme ñoom si moom ñi nga xam ne ñoom moom tiktok ba start di la joxe ko gis naa ne am na ñoo xamante ni wala amaguloo. déedéet amaguloo foog man loolu gëmuma ko ko daal. waaw parce que dañ ko. ma laaj ci rajo rek ma déedéet. ay sa ay sa Gambie c'est du seen tey. waaw dañ defoon ne dañ dee fay waaye fii xaw ma da am dégg la waaye agsi wut ñu mu ne suñu xol yi xaat barki de ma jaay rek ñu ngi bloqué rajo bi lu fi bi accountant bi parce que Gambie people ñoo ko nekk di report pour ñu block account am te Today Job ak ah, so suñ ko bloqué ko. waaw account boobu dafa dee so bi dafa ubbiwaat. waaw waaw so nañ nañ buggante suñu biir nañ jàppalante ñun ñëpp ay Gambians nañ te ñu xam ne ne tamit Gambia ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk because ñu mel ni moom ñu ngi si biir réew mi di defar yu nice di am xel pour defar waaye léegi-léegi sax ñu ngi dañ dee ragal. Mhm. dañ am ay yéene bugg naa def lii. waaye dañ dee ragal daf dee am. Mhm. man mi dama koy jëlee exemple de suma boobu man léegi dama toog yaa ma ni man dama est ce que tey du ma dem marché di fa jënd ay surprise di fa mhm. waaye dama dee xalaat man su ma ko yóbboo suñ ko duñ ko mhm. suma ko yóbboo duñ ko jënd because ñoom dañoo wax ne ne xëy kii duñ duñ ko jënd. jënd waaw bu ko jëndee so nañu jàppalante ñu ne suñ biir di seetlu ñu bëri tam ñu ngi a dugal ci business ñu ngi bëgg a jaay ñu ngi bëgg ñu ngi defar yu duñ ko mun because soo demee si marché bi fóoree na si sax ñu baal na loolu xëy na du jéem leen sànni ngeen waaye ñoom nañu gën a jënd sax si seen i alal ah, ñun ñi nga xamante ne ñooy Gambien si soo nañ jàppalante suñu biir soo xam ne waxtu bi xoj nañu su ma lay bàyyi euh, war a gërëm euh, su ko defee rek ñu daal di tëj nga xam ne moo di programme euh, maa ngi gërëm suma yaay di Mariam Ndour borom yaay bu baax bi suma best friend bi du nuyu suma papa di ko wax ne ah, jërëjëf si everything thank you so much nuyu suma mag yëpp ak suma rakka yi ñoom moom ñooy loolu moom du ñu ñëpp di nuyu suma waa TikTok yëpp di woon woon jëf gis naa love si TikTok bi thank you so much Gambia and I see the support see the love everything Gambia thank you so much jërëjëf kooku nekkoon ki nga xamante ne moo di Assane Thiam mu nekk borom Crowns yi leneen loo ko tuddee Assane. de kii tam maanaam daal def décoration wala. yeah dama wedding. wedding décoration Assane daal l'homme douze métiers nga de. <laughs> loolu ba gars yi ñu ne ma yow moom. <laughs> lu nekk <laughs> lu nekk nga bëgg ma bàyyi ah, soo balaa may dem man sax tàggatoo ndax man su tàggatoo damay xaabaabal defar kii dugal si yu bëree bëri su ko defee ñu ñuy bàyyi xel tamit ñu mën a la contact. Ah, ku ma soxla na ma call si 35 19 622. 0274515 3519622 2745156. léegi ban moo lay use WhatsApp because léegi. ñaari yëpp ñaari yëpp lay use WhatsApp. communication bi la gën a. bari la gën a bëri dañ dégg sa kanam waaw loolu la dégg ngeen kon nomba yaa nekk noonu kon mun ngeen a am ki nga xamante ne nii moo moom nañu amoon tey suñu programme bi nga xamante ne moo di jàmbaar sa waar wa nu ma ko dee waxee always nag ay jàmbaar la dem fekke leen si li nga xamante ne moo di seeni waar waaye tey moo ñëw fekk suñu ñun ñii si suñu place liggéeykaay ñu ni ay jàmbaar lañ te suñu waar nañ mu fekk ñu si moom tamit nekk jàmbaar ñu jaajëfal ko bu baax a baax mu nekk bu baax moom tamit dawal otom nangu ñëw fii nii ndax tamit yombut bu ko neexoon mu bañ nit ñi xam nañ ma TikTok bi xam nañ ma waaye di si suba mu may xool pour mu ñëw mën a ñëw fii ni si studio bi kon loolu rek jaajëfal nañ ko oyof ak euh, baaxam rek moo waral mbir lu ñu mel euh, di ko jaajëfal bu baax a baax waaye di wax ne rek LSTV wan la lépp li xamante ne mu ngeen bëgg a si nañuy doxal dinañ wëri di ku nekk nee naa duñ bàyyi téyër bi duñ bàyyi kenn képp ko xam ne doomu Gambien nga te mu leer nañu buñ la demee seet di nga wane li nga xamante ni moom ngay def te Gambien si dinañ ko apprécier dinañ dem ñu seet si la ndax suñu réew nañ am Gambien lañ am ñun ñoo ko moom noonu benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar soo il faut ñu jàppalante suñu biir fànn bi mu munee mooy fànn wax. si loolu laa ko mën a jàppalee di seen tiim tamit moom fànn bi mu munee mooy fànn defar lu baax si noonu lay jàppalee Gambien si di leen ko jox ngir ñu nice comme noonu la rek jàpp te wu bàyyi LSTV wan la ah, ma ci ànd ak always nag ak suma caméraman bi nga xamante ne nii maanaam nga ñu xulloo ba nga ne nii la. Hmm. ñu jiboowaat dañu xulloo waaye xam naa benn bis dinañu sa xulloo ji duñ jiboowaat. ndax man ak moom duñu sa jiboo sarxule la moo tax jikko sarxule rek la def <laughs> Ousmane Camara ma jaajëfal bu baax baax ah, di jaajëfal LSTV famille bi yëpp tamit ndax tey si studio bi la fa ma jaajëfal suma yi ñu fi nekk ñëpp ñoom Khady Diagne ñi nga xam ne dañoo di Ami Fadera nga xam ne suñuy defar taxaw ngir ñu bi nice nga xamante ni mooy di Samba Diop borom yi moom day ree rek always ak suñu oncle Mr Sylla moom tam mu ngi si biir kër gi di ko jaajëfal bu baax a baax kon nag cant ak ngërëm ñeen na di leen jox dig daje daje rek euh, ba beneen samedi ci li nga xam ne moo di jàmbaar sa waar wa euh, fii nii ci LS TV 1 jërë ngeen jëf crown bi nag gis ngeen ko nii tey dama ceeñ de tey beneen fànn laa indi yëpp Assane moo ko waar jërë ngeen jëf <laughs>